aouzu billahi min ashaytaan irrajim bismillahi arrahmaan irrahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di leen balwaax del si ak yéen ci beneen bunt ci firi gént comme ni ko baaxoo di leen jéggalu ci géej gi di leen wax rek ku am gént dugal ci page youtube bi mbokk yi maa ngi ci sama juróomi téeméeri vidéo yu teg jëm ci juróom benn téeméeri vidéo ci ay thématique yu bokkul soo géntee dugal ci page bi nga tàppe gént gi dana la indil vidéo bi nga seetaan ñi miin envoyé cinq cent ak audio whatsapp maa ngi wax dañ ko arrêté gum ba ca kanam du dara lépp ci laaj yi dama ko def ba pare beneen bi dafa xaw am désordre bu dee nag koo xam da nga ñëw bëgg jot téléphone ñu firi la sa gént mën naa nekk waaw waaye da ngay fay deux mille francs woote wala tey dama ñëw ci gént di lekk ci ñaari pàcc gént di lekk yow kese ak gént di lekk ak say xarit wala say dëkkandoo wala say mbokk wala say xam balaa ma ñëw ci détails dama lay tënkal gént di lekk niñ koy firee dañ lay laaj lekkin wi ak ñam bi ñam bi nga tiim di ko lekk xeetu lekk yi benn bu nekk def naa ci ay vidéo bu dee fruit bu dee banaana bu dee ceeb bu dee et cetera mais bi dafa nekk tafsir chamil bu matali bu général lépp looy lekk gént mu tilim maanaam mu salte wala mu forox walla mu yàqu walla nga daj ci ay weñ walla nga dab ci sax weñ ñaari weñ yëpp weñ yi naaw ak weñ bi nga xam ne dafa nekk matière wala puso ngay lekk gis ko ci baaxul ci gént léeg-léeg dina di liggéey bu ne sa yaram wala mu firi cat mbaa mu firi torof torof lépp looy lekk mu set wecc normal amul benn jafe-jafe ci lekk yi ak quatre vingt dix pour cent ci xeeti lekk yi ngay gént di ko lekk baax na ci gën day firi xéewal day firi wërsëg day firi réussite loolu leer mu des nag ni nga koy lekkee lekk bu bi nga miin lekk bu dal lekk bu normal amul benn désordre moo gën ci lekk bu fekkee da nga gént lekk lekk bu yàkkamti comme ku doy waar comme càlleen buy lekk mbaa ndaw ku ndaw buy lekk wala kaneen bi fërëx fërëx fërëx fërëx baaxul ci gént dangaa gént di lekk li ngay lekk fot la wala mu lor la walla nga tibb lu jéggi dayoo baaxul ci gént am tibb lu xajul sa gémmiñ baaxul ci noonu la ñuy firee gént di lekk kon voilà kon ni ñëw ci détail bu dee dangaa gént di lekk lekk bi nga xam ne moo nekk aadi bi ñu miinee lekkat lekk bu normal ci gént baax na ci gént dana firi atteindre su objectif dana firi xéewal dana firi wërsëg dana firi réussite total ci say mbir ci ñëpp gént di lekk lekkin bu doy waar di tibb tibb yu yu xajul ci sa gémmiñ bam di la lor dafay firi yow nit nga nekk nit koo xam ne dangay jël décision yoo xam ne loraange moo ciy mucc wala ngay dugg ci mbir yoo xam ne doo ko settantal ba danga koy mujjee jëlee problème kooku baaxul ci gént danga gént lekk-lekk bu gaaw la gaaw gaaw baaxul ci gént kooku na dañu wax ne alaama taxdir yi la maanaam dafa ci gént yoo xam ne gént soññ la ci nga gaaw jóg dañu wax ne day firi feebar buy ñëw mbaa jafe-jafe yu ñëw wala dugg ci musiba baaxul ci gént gént di lekk ñam boo xam ne wóor na leen en yow doo ko lekk bëggoo ko nga gént di ko lekk man duma lekk par exemple yàpp du ma lekk jën nga gént di ko lekk du ma lekk supu kànja nga gént di ko lekk baax na ci gént day firi mucc ci ay tolof-tolof ak i xat-xat ak i problème ñam bu baaxul wax naa la baaxul day firi feebar ñam bu nëpp wala wu yàqu wala yu mel noonu kooku wax naa ko wala problème da nga gént li lekk ñam boo xam dafa am raisin ci biir ay raisin wala xeetu saf-safal yooyu ci gént baax na ci gént day firi njarte ci commerce mbaa bénéfice ci koy commerce wala yokkute ci seen liggéey ñamu suukar ci gént soow la laax la caakiri la xeetu lekk yooyu ci gént day firi wërsëg ak xéewal ci gént gént ñi jox la ñam nga nga delloo ko lekkoo ko nga rejeté ko nga delloo ñam bi baaxul ci génte jarul di détaillé ni ma la ko waxee rek jàppe da nga ñu jox la ñam nga delloo ñam bi lekkoo ko baaxul mais amul danger loolu day fii yow nit nga nekk nit koo xam da ngaa ragal sa avenir da nga bëri looy hésité di xalaat ci sama ëllëg et cetera ñam boo xam ne dafa ànd ak mburu par exemple ñu jox la soos jox la mburu baax na ci gént mais bu fekkee ni laa jox ci mburu lu matul baaxul day firi wërsëgu néew laa jox bopp mbur bu tuuti boo xam ne wóor na lii tollawul ak liñ la jox ci ñam baaxul day firi wërsëgu néew bu dee nag bari na baax na kaar macha allah day firi xéewal ak wërsëgu bari kon mu ñëw ci gént di lekkandoo ak say xarit wala say dëkkandoo mbaa say mbokk ah da euh, def table di lekkandoo da ngeen nekk ci restaurant et cetera lan lay firi kooku ki may njëkk am na ki mu ki may ci njëkk seppi mooy jigéen bu sëyul jigéen bu sëyil fi mokk ma sa sëy ñoo ci am ba sëytoo gént di lekkandoo ak say xarit say mbokk say yëpp nga gént sit di leen servir di leen defar ñuy lekk wala ñu nekk say gan ñaari maanaa benn wërsëg wërsëg dafa yaatu walla mu firi jëkkër ci yow danga gént da yow kese nga nekk di préparer lekk ci taabal ci jigéen bu sëyul du mbooloo wala nga am koy xaat ak say ku ci gént day firi yëkkatiku ci jàng wala réussite ci liggéey baax na ci nit lekkandoo ak say xarit yoo xam ne xam nga leen ci jigéen bu sëyul day firi aajo ju faju day firi xabaar bu neex kooku yaa góor gu am soxna yéen koy bokk ak góor amul soxna yéen ci bokk yam góor gu am soxna ak célibataire yéen ci bokk yam baax na ci gént jigéen bi nekk ci néegu sëy gént li lekkandoo ak say xarit wala say mbokk day firi ëmb ci yow da gént am ay gan yu ñëw sa kër ci jigéen bi sëy nga leen di préparer ñam wala nga bokk ñoom lekk dana am firi yii bu njëkk bi ñaar la benn xabaar bu neex wala stabilité dal ci sa néegu baax na da gént benn gan bu la seer si jigéen buy sëy nga teral ko ngeen bokk di lekk day firi ëmb ci yow rawatina bu fekkee doom bu gan gi doom bu góor dañoo xam day rawatina day firi doom bu góor yëpp sax dana firi doom bu góor waaye dañ ne data glacialement rawatina mu nekk doom bu góor su day fii ëmb ci doom bu góor baax na ci gént képp koo xam ne danga am bor nga gént say xarit wala say dëkkandoo mbaa say kii seet si leen nga gént lekkandoo ak ñoom day firi yàlla dina la dimbal ba nga fay say bor voilà xam ne it dangaa nekk ci ay problème ak i xat-xat nga gént di lekkandoo ak say xarit ak say mbokk day firi mucc ci problème yeeg ak jafe-jafe maanaam souci yi day dañ taabu mage ci sa néeg ci gént baaxul taabu la mage fi ko miinoo ci saal wala ci couloir mbaa ci ëtt waaye nga gént mu nekk ci sa biir néeg ci jigéen buy sëy baaxul ci gént baaxul day firi problème ki xam-xam lekk ci sa biiru néeg yàgg say nit ak say xarit baaxul kon bi ma wax baax na yëpp sa biir néeg da caa bokk néeg baaxawun faa lekk moo tax ci gént ko gis rek baaxul day firi ñàqare da gént nekkandoo ak say xarit say mbokk ci place bi yaatu restaurant restaurant la jardin public la espace bi daal espace public la ngeen gént di fa lekkandoo euh, ci kum mën a doon baax na ci gént lool day firi relation ak jàmm bu dëgër ci seen diggante yéen wala mu firi wërsëg ak réussite yow aji gént gi mbaa mu firi naqar wula dëddu la ca fekkee wala mu firi bor yooyu fay incha allah ala kulli xaalin buntu baa ngi noonu ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partagé wa ma zalika alallahi bi azizin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu